asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur u Equivox TV yi maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi ci samedi ah ah samedi ju nga xam ne nag bu buñ ci nekkee la waajal mooy suba suba nag la suba yàlla nañ ko fekkete tal ko muy subay Assane Ndiaye Assane Ndiaye bool production indi bés bu rëy bés boo xam ne tamit espoir yi lamb yoo xam ne làmb yaakaar na leen suba ma ki nga xam ne nii moom mooy général Malika ngeen xam ko mbër moo xam ne nii làmbam day metti day tar day jafe yaa ngi dégg moom général Malika loolu moom la Assane Ndiaye indi kum ko booleel fils de Balla moo xam ne fi mu nekk nii ah nee na maay fils de ball la kon ma ma maanaam Balla gay de lu mu def ci géejawaay damaa bëgg def lu ko raw Assane Ndiaye nag ne leen kaay leen ma boole leen ku bëgg fu mu fanaan ku bëgg ku ko wet li ñoom ñaar boole leen day yomb loolu la Assane indi drapeau kan Bamba Fall maire Medina maire boo xam ne dama naan bokk na ci maire yi nga xam ne tëjuwul biirum déedéet du ko jafe de man de dama koy gis muy dox biir marché Tilène te loolu dinañ ci dugg ci biir balaa ñoo sori mais balaa may def dara ki may njëkk a jox mu nuyoo mooy Assane Ndiaye l'homme de Baol production Assane maa ngi lay ziar. jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. di nuyu doyen Sow Fall. Mm-hmm. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Equivox. Mm-hmm. di nuyu Góoru Ndoy ak pël bu rafet. borom Bawol TV. waaw di nuyu Sénégal yëpp. Mhm. di nuyu waa diaspora bi. Mhm. di nuyu Alaaji Mbay Ndiir mi ma àndal. Mhm. di nuyu waa Bawol production yëpp. ñaan yàlla julli ci yonent bi. sant suñuy waajur sant Serigne Touba bu wér. di la nuyu di nuyu waa Equivox yëpp. di ñaan yàlla réew mi. yàlla def ci jàmm ci barke Serigne Saliou. akasa amin yàlla mën na ko yàlla na ko def Saourou Fall comme ni ko Assane waxee doyen parce que yaakaar naa sunu kilifa nga ci làmb loolu la yàlla dogal kilifa ak ñu bari nga tey ci làmb ñu ngi lay ziar di la ñaan fii tamit eh, di la ñaanal jàmm di ko saako ci yow fii moom defe naa ne bëri na loo fiy ñëw Equivox TV. waaw jërëjëf Babacar d'abord maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu Equivox. di la nuyu d'abord. Mhm. di nuyu aussi sa sa caméraman Mm-hmm. di nuyu aussi Assane. Mm-hmm. nga xam moom tey tey nag dafa jar leeral parce que man invité laa tey. invité am tey moo ma invité moo la invité. <laughs> am na solo tey invité am laa. moo sant di ko ñaanal di sama frère sama rakk. sama ah, xarit aussi. ndeysaan di nuyu aussi président Gora. Mm-hmm. moom koo xam ne dañu yàgg ma ak moom. Gora Ndoye waaw du tey. dina ñëw léegi waaw moom du tey vraiment mu nit ku baax nit ku xam làmb aussi. aussi suñu sœur. Euh, pël pël bu rafet. moom itam mm. vraiment di liggéey ci Bawal TV. lu gaynde mhm. vraiment ñuy gis liggéeyam mhm. jàmbaar wax di yàlla suba ngoon nopp heure bi dem mi ngi ci activité yi noppal moom euh, vraiment di di di di ndaw di jigéen aussi l'infatigable la vraiment ñoo ngi koy ñaan yàlla borom yàlla gën a euh, mhm. yokk liggéey bi parce que jàmbaar la gaynde la macha allah ñu aussi suñu frère mbay Ndir Mbaye Ndir mooy euh, Ndirène Couture waaw Ndirène Couture moom fu bari lay jaar <laughs> di nuyu wàllu si waa atelier yëpp Ah. Bamir gaa yëpp rek di nuyu comme ni ko Assane waxee di nuyu waa Bawol production yi bi yëpp di gitoor la Cheikh Diaw mhm. ak El Hadj Ndiaye mu nuyu ñu am na solo waaw comme ni ngeen ko waxee macha allah ah, muy nuyu tamit ñeneen ñi parce que ci kanam di ngeen gis euh, Mbaye Ndiir ak Gorondooy Gorondooy nag li tax mu war a ñëw mooy moom mooy président jeune amateur te defe naa tamit ama amateur yi bu ñu waxee làmb amateur a parce que ñoom ñooy dagg billet yi nga xam ne ni billet yu seer la ñëw di seetaan te lu yàqu ñu defar ko kon defe naa kooku am nañ defe naa ne wax na wax ci bis bu mel nii Mbaye Ndir tamit li tax mu ñëw mooy moom dafa yàgg ak Assane Ndiaye ndax ku xam Assane Ndiaye xam kook Mbaye Ndir xam kook a jaañ xam kook ak ñoom Alaaji Ndiaye ak ñoom Cheikh Diaw te ànd bu yàgg dëgg la pël nag comme li may waxee rek yàlla na ko yàlla defal jàmm parce que maanaam li may gën a impressionné ci pël du mais maanaam xol bi mu amee quoi par rapport nangoo partagé alalam ndax dañuy dox benn jour dama damay dox ba dajeeg moom biir fi mu dëkk nii cité des eaux nu mu tuddati zone de captage mën na ko pël te yoruma xaalis pël yëkkati xaalis jox ma jënd boisson ba jënd sax ay kerem jox ma ko ah te loolu tamit defe naa dafa baax ñu di ko wax ko ndax Sëñ Abdoulaye Mbacke euh, noon na géwél amul mais ku la defal lu baax dee ko wax kon pël yàlla na sa jàmm yàgg sa diggante ak Assane ak Baol production tamit yàlla na gën a dëgër barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen ju te yàlla na la yàlla may borom kër bu la nopp tamit nag te yërëm la loolu laa lay ñaanal <laughs> Assane Ndiaye yi yaa rabbal mu mel ni fi may ñëw tout droit mooy drapeau Bamba Fall yàgg nga koo def nekk na sax si prison nga def ko dëgg la sa kóllëre ak Bamba Fall lu ko dëgëral ba muy dox ba heure bi tey ba nga dellooti ko njukkal dimanche bii ñu jëm le 24 stadium Iba Mar waaw jërëjëf xam nga Bamba sama frère la mhm. sama mag la sama xarit la mhm. euh, bii moo nekk septième édition juróom-ñaari at juróom-ñaari at du du caaxaan te wax dëgg yàlla ñu ngi ko ànd ci ngor. Mm-hmm. mu neex ñi ngi ànd mu naqari ñi ngi ànd. Mm-hmm. te loolu mooy coloré. Euh, mm-hmm. muy koo xam ne nag am na fulla fayda. nangoo liggéey. am dignité. doo wax ay waxi politique. déedéet raay raay lu mu ko de mais lu mu waxanteeg yow rek da koy def. da nit la koo xam ne aussi fi mu dëkk. bëgg na ko gëm ko. ma dëkk fa douze ans wala treize ans. kon xam naa. ci moom lu bëri. Mhm. soo ñëwee Medina avant ak ak. bu njëkk a tey ni mel. waaw da nga naan déedéet wax dëgg yàlla ci côté yëpp xam nga Medina dafa rëy. ci côté yëpp la nekkee. Mhm. ñaanal ko yàlla yàlla taxawu ko yàlla jàppale ko. Mhm. ñun ñu ci ginnaawam. ndax mi ñuy jàppale côté yëpp. kon it luñ man ak pour def ko. dana ko jàppale. at mu jot fas yéen fas nañ yéene. feddali suñ kóllëre ak moom. ak moom te nag drapeau bu ñëw. gën a neex. gën a neex. bu ñëw mu gën ko gën ko bëgg. mu gën ko bëgg. waaw waaw ndax kera gën a bëgg googu mën nañ koo firndeel ndax defe naa parrain bu ñuy tuddee drapeau. Mhm. yow sax yaa jiitu mbër fa ñuy defee faasa à ba. ci maire. moom woo na ma egsi na gis nga man ba ma ñëwee fa laa ko fekk. <laughs> fa laa ko fekk man voilà. ba pare euh, xam nga muy gën a lu yaatal affaire bi. macha jël drapeau jox Mbaye Guèye Faye. jël drapeau. jox benn booy bu neen ci moom di liggéey ñu koy wax euh, mu muy bi mu a dina yàlla na ko yàlla xaraat jël wallahi al azim ko bu baax dinañ ci delloo njukkal Modou Fall Médoune mhm. Niass mhm. Doudou Seck ñëpp dañoo yàgg biir Médina ñoom ñëpp ay doom Médina lañ mu ne bu jour ba mhm. dina jël ay kado jox leen ko ñoom seen njaboot njaboot yi ndeysaan yaa ngi dégg Niass muy ku baax daal oh. te ku neex àndal ndeysaan ku gëm boppam xam nga Sénégal li ci am solo mooy boo dëkkee ci gox def fa loo xam ne ku ñëw dina xam ne lii yaa ko fi dëgg la am na solo. boo duggee marché leen tey. Hmm. ñu ko orienté ak avant. waaw ah, waaw. ah man mii xam bu baax waaw baax xam nga ah, ko boo fa doon dem tey bala ngaa ëgsi ci <laughs> magasin bi <laughs> bala ngaa demaat ci benn bi ko ah, orienté jàmbaar la daal wax dëgg yàlla ku hmm. neex a àndal ku neex a nekkal la moom hmm. Bamba Fall macha allah am na solo parce que loolu nga wax noonu dama si dafay nekk lu ma neex parce que ñas mu ngay wax defe naa ne ku yàgg sonnal làmb la Mhm. yaa ngi dégg dëgg la eh, defe naa ne eh, ku yàgg sonal la ba génn àddina yàlla na ko yàlla xare àjjana Moodu Fall tamit mhm. yàgg sonn Medina yàgg sonnal tamit làmba bamba di leen delloo njukkal loolu lépp di ci Medina bi waaye tamit koo xam ne icône la ci mhm. Sénégal muy mbay Dieye fay ndax bu ne Youssou Ndour disque d'or Grammy Awards Mbaye Dieye Faye nga ca ginnaaw ma ngay door lu mu way moo ko mbalax kon defe naa lu Youssou Ndour am rek Mbaye Dieye Faye mu nga ca biir kon defe naa ne uh-huh. bamba moom la war a def la def rek macha allah Sëwru Fall naa tamit yow en tant que manager lu mel nii parce que souvent Baol Production dafay indi ay journée yoo xam ne bi mu mujj am na làmb ju mujj tëgg ren mhm. hmm? defe naa mooy làmb mbay guy gi maam Balla mhm. euh, ga fi euh, euh, gàkku deux ak Boy Dakar mhm. ah yu bari ah ak Ziza benn journée kere stadium bi di toj dimanche mu defate lu mel noonu loolu yéen en tant que ay ménager maanaam loolu ban gis-gis ngeen ci am ci làmb waaw d' abord Babacar dinaa laal tuuti ci li Assane wax rek ci Bamba parce que ñun suñu parce que ñun ñëpp maire naa leen euh, ci lu ñu mën a seere ci moom mhm. même bu doot la làmb mhm. d' abord ñu nekk ay commerçant aussi ay opérateur mhm. économique man néew ma ti leen personnellement mais mën naa ni maa fa ne parce que samay xarit rek ñoo fa ne la nga sama marché fa nekk la nga euh, boo gisee événement nii su xew ay korité wala yu mel nii sax da ngay gis Bamba yërmande ju am ci ñoom parce que dafa xam secteur informel maanaam yërmande bi am ci ñoom dina leen teel a defal ay yërmande waaye fa leen lépp wax dëgg yàlla mari ku fa ñëwee gis na maanaam li ma gën a impression ci moom mooy woyof gi bamba même heure boo ñëwee fi ñuy grand place attaay kaay fi nga koy fekk mu nit ku woyof nekkul koo xam kuy wala yenn mhm. euh, mhm. autorité boo nekkee ni da ngay jege sa population bamba boo gisee même Médina lu mu fay xëcc ni nit ñi topp ko aussi moo ko nit ña nit ñi kenn moom leen joxu leen xaay joxu leen saako ceeb def leen yëpp ku ci am ma ngi ca ngénte ci dëj ma ngi ci garam place toog des fois ci terrain jaraaf boobu nga koy fekk mu seetaan football. xam nga loolu nit bu fekkee autorité ni ko def itam mu nga dëkkal vraiment nit ñi man de yëg laa jàppe ni ah, yëg ah, mu ah. nit ku baax mm-hmm. asan itam nekk ko la parce que mm-hmm. euh, comme ni nga ñëwaat si question nga euh, euh, asan li ko benn mbër wax de muy tafaagee day mbër mu mbër mu mbër mu nu ñu sax. raté mbër mu raté. wax dama ko koy parce que mbër mu raté la. Mm-hmm, loolu mooy amateur la. te gonek bawal la rek mm. te gonek bawal mu wax dëgg yàlla boo demee ci làmb mm-hmm. ah jaadu na mu ànd ak aussi ay nit ay staff bi ñu si waxtaan itam mm. parce que ñun ni àndee ñun en tant que ménage nga wax itam bon mais bu dee comme moom la mm. ñun ñun en général ñun promoteur yëpp dañu bëgg rek ñu jëm kanam mm-hmm. mais nag rawatina moom parce que moom dafa nekk ci man xarit mm-hmm. euh, ñu ànd yàgg lu ànd lu yàgg yàgg yàgg suñu ànd tey mënatu moom mënatu ci dara mënatu ko dindi déedéet am na lu mënateesu ci dara waaw man la jiital ci kanam mhm. ba ci yéen presse bu ngeen lu ngeen programme bañ na ko programme bu ñëwee damay wax ma <laughs> ci man des dama ci xuloo ma dama ko wax ne tey defaruma dara mun ma yaa xam bu la ah. neex bu ko defar man sama yoon nekku eh. man programme sa programme loolu sama yoon néew man ma defar sama bopp def la ma ci war def yëpp bu ngeen ma jox leen ko mm-hmm. kon nag nit ki bu fekkee daf la daf la teg fa si mm-hmm. aussi muy ñu euh, dem ba suñu famille parce que mën naa ne jaxasoo mm-hmm. parce que ay doomam tey ji samay xarit lañ parce que samay doolu mais aussi la même chose moom xam nañ dara kon nag nit ki bu teg foofu kuy nitam dama mel ak moom noonu la mel ak ku sama xarit kon nag bu amee bis euh, wax dëgg yàlla dañ ciy taxaw liggéey ci ndax itam euh, beneen bi mooy doomu bawal dañu bëgg ndam waaw loola dañ koy fàtte doomu bawol amul benn doomu bawol bu bëggul ndam loolu lay mën a wax dañu bëgg ndam hmm. man bis man bis bu ma ci bokkee hmm. dafay mel ni bu nit amee gàttee xel sax dafa yaakaar man li dama ci am intérêt bu dul jeex hmm. parce que damay fekk na yow réussite ba rek nga nga cay soxla man Babacar bëgg na réussite waaw dama ko bëgg dafa am solo sax dama ko ci xaar waaw du ma xaar pour mu a xaalis wala ma la def la ko xaar wala lu ma waral non non koy defaa sama gis ngeen xëccoo non non non xëccoo bi yëpp day xër ma xër waaw pour nga bëgg mu baax man yooyu yooyu amu ci problème <laughs> doo ca doo ko cof non man du man du ma co bëgg réussite dëgg la man moo tax bu ma ñëwee bu ma gisee laa mel ne ni rek vraiment damay damay kontaan dëgg la damay damay dama naan man vraiment kontaan na malgré dinaa ci am ay mbër mais man bisam sax du ma sama mbër wax dëgg yàlla parce que nag lépp man maa ko yor naa ne yaa ko yor waaw ma koy santaat ci loolu parce que euh, confiance la ah, ah. a ma koy santaat di ko gërëmal baax léegi yow dinaa la laaj leen général Malick ak fils de Balla yaakaar naa ne waxuma sax seen duggum làmb ña leen mag sax seen duggum làmb sa kanam la ñaari mbër yooyu mhm. am na ay ñu nga xam ne wax nañ ci ne général Malick euh, fils de Balla na moytu xeex bi ñu ne général euh, euh, non dañ ne général Malick maanaam na moytu li nga xam ne nii moom moo di xeex bi mais fils de Balla na moytu bëri bi yow loo gis waaw kenn ku ne am na looy moytu waaye kenn ku ne am nga am nga am nga am nga atu général loo koy moytu loo bon général bu ma ko doon moytu loo def naa wax naa ko sàng ci benn journal hmm. parce que dama laaj boo ko indi man su ma ko indi woon danaa woote xeex ñëw bëre. bëre bëre woote xeex ñëw bëre ñu woote xeex ñëw bëre. Hmm. parce que nag ñu bëree bari moom la ñu jox favori. général waaw. Hmm. fi ñu teg favori peut être sama xalaat boobu fi ñu teg favori mooy peut mu muy compétir te ki compétirut. ok maanaam mbapat yi mun na di bëree mbapat yeeg yooyu mi ngi nekk actuellement regroupement. Mhm. peut-être waa loolu aussi avantage la bu ñu ko avantage la aussi parce que équipe nationale tam du caaxaan. parce que ña nag wax dëgg yàlla da ngay jël sa temps. Mhm. ñu lay won yu bare bare bare bare. niveau daal mhm. te moom fi fi fi ko amee. Euh, da nangu aussi euh, favori bi. parce que dana am récupération bu baax. parce que fi ñu nekk ñoom amul dara lu leen gêné entraînement lekk ba suur ñëw tëdd. loolu avantage la. loolu aussi avantage la. Mhm. fils de Balla aussi man su ma ko indi woon aussi comme ñu wax journal bi rek. Mhm. Euh, bu fekkee dëgg dëgg li mu war a liggéey lépp liggéey na ko. Mhm. Euh, xeex bu gaaw ak déplacement. xeex bu gaaw déplacement xeex bu gaaw déplacement góosu jub du bañ a xeex xeex mbedd ak laaw parce que laaw wóorul. maanaam bu mu laaw waaw li war a nekk ci moom. bu mu xeex xeexu mbedd waaw xeexu mbedd man hmm? bëgguma ko ci laaw. maanaam daal na ko. Euh, seetaan naa aussi si ñaari naa ci ñaar ñoo xam ni. Euh, ci façon xeex yi ñuy xeex hmm. am na xeex boo koy doyuma ci ñoom ñaar ci ñoom ñaar kan la ci non du ma ni kenn la mais am na ñoom ñaar ci ni ma gisee ñuy ñuy sato parce que gis naa maanaam ñuy man gis naa koo xam xeex boo xam man doyuma ah non na la dóor nga wàcc mën na la dóor nga wàcc kon yow dàq ko ci dóor mu daanu dimanche na ci am euh, boo xoolee bon ñoom ñaar set bu ñuy wax du ñuy xeexkat yi bon du ñuy xeexkat lool fils de Balla am na benn bu man gis nga Babacar mbër waaw maninam ak ku mën a doon hmm. ak ku mën a doon maninu mbër dee ko moytu am la ci yegg hmm. loo ko ëpp ëpp doole hmm. manin du caaxaan même ñi jàngal bëri dañ lay jàngal ni la mbër mi li nga fekk mu gën koo mane bul ko ko bàyyi da ngay xool loo ko yokkale loo ko ko yokkale loolu ngay jàngale mbër aussi bëre bëri nit ki li man bu fekkee par Assane Ndiaye bi dañu toog moom mu mën a tànk hmm. bul ni ko bul bëree tànk hmm. bul ko ko aye wutal loo ko ci yokkal da nga koy wutal loo ko yokkal ni ko bu njëlee tànk ñii ngay defal ñii ngay def nangam nang loolu la ñu jàngale bëri noonu la ñu jàngale doo ko aye bërikat kenn du ko aye man man inam am na solo waaye gis naa koo xam daal man xeex bi muy xeex bëgguma xeex bu sax ci loolu bëgguma mu sax ci déedéet ndax xaar nga ne bu ca saxee leneen mën na ko caa fekk waaw mën nañ ko fekk am na solo sawru kon la may def mooy li nga wax am na solo tënk nga sa digganteeg Assane Ndiaye sa digganteeg euh, Bamba Fall ak waa Medina te combat bi itam joxa nga ci sax xalaat en tant que technicien kon dama la naan lu yow euh, lan ngay euh, maanaam looy wax amateur dimanche di ko tàggatoo. waaw loolu comme euh, góor mi ngi toog rek ñu leen di xam nga ñoom miin miinante nañu ak Assane. amateur waaw ñoom moom miinante nañu Assane waaw góor a ngi toog ñoom. am na ko dama wax daanaka ñoom jëriñ. moom bu ñëwee ci waaw. waaw loolu sax moom jëriñ ñoom son ñoom kay. li may xalaat nag mooy euh, président Gora. waaw muy yow mu ñoom du jaa ñeneen ñi amateur yëpp. waaw groupe baax groupe baax. waaw ngeen teel a ñëw. teel a ñëw parce que bu ngeen teel ñëw. <laughs> ndax xale yi yi fa nekk. ci ah. programme bi. Ah. Ah. Euh, bu ngeen teel te ñëw daal en tout cas bu bu leen bu leen wax ne Assane leen tooñ. bu leen wax ni Bamba ñu tooñ. waaw. parce que Bamba moom waxuma dara mel moom kese kese kese moom li mu parawaale boo rek. ndax stade bi ci dëkkam la ndax itam na moom li wax leer na. Mhm. fii la ñu départ jëluñu kaar jëluñu. déedéet dox papa moom mars yàgg na ko ah. xale yooyu tam xale yii nga xam ne tey ñoo bëri journée bii. Mhm. ba ci première combat ba ci kaw. Mhm. xale nañ yoo xam tey ak xale yi ni ñuy bi parce que nag euh, xam nga bawal production. Mhm. da di ñoom xale yi dañu sawar pour su bëri ci seen journée. waaw parce que nag euh, liñ ci war yëpp dañ ko ci def. dañ ko ci def kon nag euh, liñ fay ñaan daal mooy ku ñëw ñu ngi indaale jàmm. ndax ñun jàmm lañu woote. yàlla na yàlla daal loolu lañ bëgg zéro violence am. incha allah balaa ñuy dem fenn itam dinañ gërëm police. la police ndax mu leen bañ a gërëm mu leen bañ a sant. ndax ñoom xale yi ñëw ci stade bi surtout supporter la waxuma amateur supporter yi. nañ jox service d'ordre bi gëdd. cër waaw cër ndax ñoom. ñoom ñoo tax ñu ñëw ci stade bi duñu sécuriser. Mhm. bu dul ñoom la làmb du am. Mhm. te ñoom ñoom ñoom pour seen sécurité ñoom ñoom ñoo tax ñëw fa. kon bu ñu yamal fii. yamal foofa. mën nga supporter mbër nu mu la neexee mhm. mais sport amul saaga amul xuloo amul xeex amul parce que adversaire ñooy mayante xaalis mhm. te ñun tëgg làmb ji aussi nitu jàmm mhm. ak fair play ñu ñaanal ñëpp jàmm ak salaam euh, di leen gërëm aussi yéen presse bi parce que nag bu ñu waxatee dëgg loolu ci sa euh, comme fii laa toogee dañ ko wax kenn mu leen fay surtout yéen vraiment yéen ressources yi bu ñu leen a gis nañ seen jàpp ci làmb Arsenal lu ma ne Assane ci làmb pas bu mag a mag a mag a am na solo kon nag vraiment ñu ngi leen di gërëm. Mhm. ngërëm loolu moom dama koy booleel promoteur yëpp daal. waaw ñëpp am naa droit. Mhm. sant premier wax jot la sant promoteur man ñëpp samay xarit lañu waaw ñoom ñëpp kon nag di ñaan aussi yeneen journée ni ci kanam bu fa jógee Fallou Ndiaye mooy ñëw yeneen journée des kanam lépp itam yeneen journée des yëpp xam ah. lépp yàlla def ci ndam may promoteur yi xéewal gu bare bare bare te mbër yi itam ñuy comprendre aussi promoteur yi maa ngi jéggu doon xam naa taabaa gudd mais xam nga rek <laughs> fi ñu fi ñu fi ñu tooge la moo tax waaw euh, yi aussi euh, mbër aussi ah. su promoteur bëggati ñoom dara hmm. ñu fexe ñu yomb parce que ñooy seen patron ah, ñuy ñu nekk suñu patron te ñu jiital aussi lu mën a ko ñu jiital ngor hmm. fexe ba réeru doom parce que ñoo bokk teen bi hmm. nañu waxtaan léegi nañ fexe ba lépp rafet tey Assane kuñ ci tëgg wala Fall tëgg la keneen ak kenn tëgg la buñ ëllëg yi ngeen fexe ba ëllëg bu ngeen daje kenn ruus ngor dafa baax ci àdduna am na solo nañ ko jiital jaajëf sa léegi balaa may woo sax góorandooy parce que moom mooy jiite amateurs yi moom mooy mujjee les jeunes amateurs mais naa woo Mbaye Ndir moom tamit am diggante bu doy waar diggante ak Assane mais léegi damay demaat ci Assane en attendant Mbaye Ndir di toog euh, waaw ma dem ci Assane Assane euh, defe naa ne euh, li nga xam ne nii moom nga nar a def dimanche. Mhm. parce que sa làmb yomb nañ cee gis animation <laughs> bu doy waar. waaw mbaykaay sa lamb yomb naa am animation bu doy waar waaw Babacar euh, yëngu sa lamb dafa yomb yëngu ko waa bés bi waaw bu mu mën a doon rek ah, ah. dañ koy fonk dañ koy fonk bés yi mhm. dañ leen di jox cër mhm. ba pare cëral ci bis bi cëral leen waaw mhm. ndax euh, liñ ciy waaj ñu ngi ñaan yàlla mu sotti ci jàmm ñu ngi ciy waaj ñu ni njëkk àndal mooy waa kër Pape Seck duut Euh, Ndik Cuun Ndiku waaw Moussa Diouf Moussa Diouf oh ay Moussa Diouf Essa Diouf Iba eh, eh, eh, Assane Diouf ñooñ ñooy diwo ba pare cey làmb ñu jëli Momo Ngom ak Mbaye ak ak Ndey Faatu Adama Jaay Ndey Faatooy ñëw mooy ñëw hop hop hop hop ñu jógee ci loolu Bamba <laughs> jël Sidi Diop loolu lépp dañ koy dëxëñ rek <laughs> jox ko amateur ndax loolu dana fa xaaj bokkut ak combat bokkut ak combat yu ndaw yi ndax amateur bu dagg biem war naa bég buy ñibbi kontaan ndax man damay nekk ak ñoom. Mhm. làmb tas ñuy ñaxtu lii neexuñu bëgguñu lii yooyu yëpp dama koy daw. da koy daw ndax damay bëgg lu leen di bégal. loolu rek la. man de maa fekkee Moussa Diouf ca ca Assane Diouf. maa la wax lool. mu fay way wayu doy lu leer ah ci kàttanu yàlla daal ah ah ñu ngi koy waaj bu baax daanaa a ngi noonu ku mën a way ñu ngi koy waaj te léegi moom bëgg nañ ko lool dinaa ñëw ak yow ci leneen ba ci ah, kanam damay damay ñëw ci koo xam ne sa xarit la kii de defe naa toog xam nga ko de kii xam nga kii toog non yaay yaay def lu nekk c'est la première fois ma gis sax mu toog mais <laughs> yàgg nañ trop macha allah mbay nit ku baax borom xol bu rafet nit ku yëg nit oh. wallahi al nit ku gëm boppam nag mhm. moo toog nit ku nit maanaam nit ku gëm nit. nit ku bëgg nit. waaw gëm nit. Mhm. gëm boppam. moom mbay Ndir moom Mbaye am na solo mbay defe naa ne loson nañ c'est la première fois may def lu ne mais tamit c'est normal parce que defe naa ne ay nit buñ dee ànd liggéey bi rafet ñuy jëflante te te ànd bu bu yàggee rek dëgg la ndax li koy waral mooy ay nit dinañ ànd des fois am ay ñagas-ñagas waaye lay tax ñu xam ne ànd ba dëgg la ñu faxas ko te continuer di ànd te yàlla tax te defe naa loolu mooy ànd bu dëgër. yaa yi dégg mais bu dee bu ñagas-ñagas amee ànd ba yàqu des naa dëgër ndax àddina lépp mënut di nooy chaque jour des fois ay jafe-jafe am defe naa ne kii toogit yow xam nga ko may maa ngi lay ziare borom ndiireen waaw Couture <laughs> ah juumoo de Babacar <laughs> macha allah <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateur Equivox yëpp mhm. di leen nuyu yéen yëpp di leen tiyaar bu baax a baax di nuyu sama doomu ndey Assane Ndiaye mhm. di nuyu suñu grand sooru Fall. Uh-huh. di nuyu pël bu rafet. borom Bawol TV. waaw ah <laughs> di nuyu président Gora Ndoye moom tamit ah. Uh-huh. waaw di wax ne Babacar Juumoo. dëgg la ndax jëmm ji. Mm-hmm. dafay kenn ci man. asam waaw. Mm-hmm. maanaam lépp lu mu bëgg ci man. Mm-hmm. xanaa lu mu mënul lu mu amul la. mais lépp lu mu bëgg ci man rek wax dëgg si yàlla duma ko xaar. nit ku baax. nit ku bëgg nitam la. nit ku bëgg bësam la nag. moo tax ñun ñuy ànd ak moom sax dañuy am problème ndax bësam attan na ci def loo xamante ne nii mhm. da lay wóor ne lii bëgg nit ñi bëgg moo tax mu def ko mhm. ba pare ñun ñuy ànd ak moom wax dëgg yàlla fonk nañu mhm. ndax nit boo ànd ak moom bu yàggee rek ànd ba dafa dëggu dafa dëggu te nit ñàkkewul fayda ànd ak nit nit ka ngay àndal fonk la déedéet ah te dafa mën nitam Babacar samay mbokk sama ku ma mën a am xam na sama diggante ak Assane Ndiaye ak Assane Ndiaye dëgg la. lu ndakaaru rëy rëy rëy su ma xëyee su ma wàccee. Mhm. këram laa jëm mbaa su ma xëyee bu dimanche këram laa jëm su ma fa demul dew ma fenn. moom tamit noonu. Mhm. yàlla moo ñu boole. yàllaa leen boolee waaw yàlla na ànd bi yàgg. amiin yaa rabbal aalamiin aju mbay ji fekk Youssou Ndour ànd bu yàgg bi nen na dëgg la <laughs> macha allah. ànd bu yàggee rek dëgg lay doon. am na solo. Ah. Euh, defe naa làmb ji tamit euh, da ngay dund làmb. ndax itam ku jege Assane Ndiaye bokk nga biir Baol production di dund làmb moo indi dimanche général Malika fils de Balla drapeau Bamba Fall loolu loo ciy wax en tant que sénégalais boo xam ne da ngay seetaan làmb di ko dund boobu combat. ak drapeau bi ki ko duppee. waaw xam nga loolu ki ñu ko tuddee sax d'abord dañ koy delloo njukkal. Bamba Bamba Fall. Mm-hmm. man Medina laa dëkk. Mm. donc kon mën naa wax ne mën wax ci moom de. waaw mën nañ wax ci moom wallaay mën ngeen a ndax gis nañ lu mu def. <laughs> te olof yi dañ ne lu ne fànn kenn du jeex du du a ne sax Bamba Fall la mu def Medina ñëpp gis nañ ko. Mm-hmm. mën nañ ko wax ndax fa lañ dëkk. Mm-hmm. waaw donc Assane bu ko tuddee drapeau. dafa delloo mbattu ca Ndaala. ca dëgg la waay. juróom-ñaari at koo ko tuddee drapeau du benn fan. te tàqalikoo ngeen te dëgg la. te Assane dafa neex àndal hmm. ndax lu tax dafa neex àndal mooy hmm. Babacar Assane buy ànd ak neen ndax xaalis kon bàyyi nañu bare bare bare bare na maire yoo xamante ne nii tey jii ñu ngi ci dëkk bi tey jii ñu xam leen hmm. mu tudd leen làmb am déception te su ko neexoon wax leen dëgg la mais Bamba Fall nag bokkul ci ñooñu dëgg la yàlla sunu borom defal na ko baat boo xamante ne nii lu mu la wax doo koy def moom Bamba waaw waaw te nag yaakaar naa ne nit boo xamante ne ni da ngay séq ak moom mm-hmm. la ngay waxante ak moom mu di ko def mm-hmm. ah di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko rek waaw mm-hmm. ah, yàlla yokk lañ koy ñaanal di ñaanal Assane njaay dimanche ñu dugg ceeg jàmm ak salaam am si réussite totale ndax wax dëgg si yàlla dépensé na ci xaalis ci lu ma xam ci làmb ji sonn na ci lool ci lu ma xam waaw donc kon ñu ngi koy ñaanal réussite totale. macha allah li mu ci def yëpp pour bëgg amateurs yi bëgg lañ. pour bëgg ñu bëgg. ndax bu ko neexoon tëgg làmb nit ñi wuy ko. waaw wante def na ci loo xamante ne nii. pour hmm. amateurs yi bëgg. waaw que tamit ñi mu lim. lim lépp ci ay waykat. ak yooyu man ba ma gisee ah. Moussa Diouf. waaw Moussa Diouf gis mu indi Momo Ngom. waaw gis mu indi ne keneen keneen. waaw <laughs> fa. mu ne yi ni ñu bëggee kontaan naa. ah dinañu bëgg de. waaw ah, te nag kañ ko tudde moo toll noonu nag. daañu bëgg de waaw Bamba Fall de ba drapeau ëpp na loolu parce que defe naa ne boo ne drapeau Bamba Fall moom <laughs> indi Moussa Diouf indi Ndiku Cuun Moussa Diouf def dëkk diggante te euh, Fass ak Medina jeex na ndax ku ko xam-xam ko ci zone yooyu mhm. ba pare mu mhm. yàgg a way làmba mhm. fa nga xam ne moo di Stade Assane Diouf dëgg la defe naa mbër yu bëri bi ñuy nekk ay xale di jéemantu ci làmb bëri nañ ci kanam Moussa Mbapat mu di leen wayal Moussa dama ko xam parce que ak a mën a way dañ jàngandoo métier man moom mu nekk tailleur ma nekk tailleur nekk apprenti nekk apprenti kon yow xam nga Moussa xam naa Moussa bu baax xam na mu bu baax dëgg la kon loo wax si moom rek xam naa ko macha allah waaw kon yàlla na yàlla def jàmm rek yàlla na yàlla def jàmm Babacar su ma fi toogee ma toog te du ma gërëm Daouda Diagne Daouda waaw moom di gërëm Mamoun Ndiaye mi nga xam ne mooy magu Assane Ndiaye mhm. su ma waxee kooku nag damay mel ni wax naa ñëpp ñëpp ñëpp dëgg di wax nag mention spéciale Cheikh Diaw Cheikh Diaw waaw Cheikh Diaw mhm. moom mention spéciale moom ak Sowru Fall sonn nañ ci trop mhm. waaw di ñaan daal Babacar tey la samedi suba la dimanche. waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm rek. waaw Ndiréne Couture kon nag lundi arena Abdou xaar leen moo may solal. incha allah rabbi sama turandoo amul benn problème baa nga nekk fa nga xam ne nii moom mooy ca. lii yow kañ lu gën a neex dimanche di ñëw làmb ja. bu subaa nga jot sa yére. loolu leer na nañ kon léegi góorandooy laay woo mu ñëw <laughs> ñu jeexal ah defe naa ne mbay li mu wax leer na dégg nga ko. Euh, wax jooju boo amoon loo ci yokk lan lay doon. c'est la première fois mu ñëw toog di wax. waaw loolu. <laughs> wax ji jaar yoon set. des fois nag dinaa génn. ah ku ma yabalati ne la na mbay wax rek. <laughs> na xam na na wax. <laughs> mbay ah kii de daa mel ni ah, macha allah de. dañoo yàgg ci dañoo yàgg di ànd ak moom. waaw di amul fu mu yóbbuwul. dëkk bi sax génn naa fi ndax moom. Oh. dem na Abidjan ñaari frontière génn naa ko ndax moom. ndax ndax Assane Ndiaye ñetti frontière génn naa ko ndax moom. ndeysaan. kon Babacar su ma mënul wax lan laay mën. vraiment. organiser na làmb Abidjan. ah waaw waaw drapeau Habib Biaye waaw te ñi ngi waaj a def deuxième édition bi incha allah. ca Côte d'Ivoire incha allah. ndaw naanum boisson mu mit. <laughs> Habib <laughs> Biaye séeréer bi suba man kay fa nga ne xam naa bu dee ca côté Miami ga la. waaw teel la lay la la teel la bindu si pël Abidjan. jël si ko non Abidjan ah dama man Baol production mënu ma caa ah, ba muy door pël moom du def lu ma boolewut loolu yàlla dogal na ko ah, pël ci làmb du def lu mu boolewut Babacar non du def lu mu boolewut Babacar waaw euh, moo ma ma ciy profité di nuyu sama xarit ba Lamine Seck parce que ñooñu yàlla booleeg ñoom muy pël ak Lamine waaw ñooñu moom mënuñoo def lu ma bokkut ci làmb déedéet bariwul lu muy am de waaw waaw yéen a ngi koy waaj Abidjan ndax dafa bëgg tëggaat làmb allah ñu ngi koy waaj mhm. dañ koo bëgg da ngeen ko bëgg ñoom it ñu may woo tout le temps li ñu defaloon li ñu defaloon am mhm. nga ñu toog mhm. waa Abidjan yëpp dajewaat. waaw ci benn spectacle. Mhm. yaa ñu ci dimbale. maa ngi koy pare. te bu boobaa nag dina yaatu amateur yeeg ñëppay dagg bi de. may nuyu Seydou bu Sa Thiès ca Côte d'Ivoire. waaw daf may bëggee muy nuyu Ivoirien yëpp Majeng waaw Habib Biaye. Habib Biaye Ali ah. Daam. Uh-huh. xam nga ñëpp ñi ngi waaj bis boobu. incha allah rabi am na solo. def Abidjan doom ci kàttan yàlla. Euh, léegi euh, balaa may ñëw parce que daa ci ñaata ak yow góor maa ngi lay ziar président des jeunes amateurs. waaw Babacar maa ngi lay doon moom itam kuy so ku bëgg làmb. te ci sonn trop nag. ndeysaan dëgg la waay dëgg la <laughs> waaw ma bu baax mon frère di nuyu Assane le grand promoteur. ndeysaan di suñu nit di suñu xarit. di ku yàgg ak jeune amateur. waaw maa ngi fàttaliku drapeau bi njëkk bi ñu njëkk am. moom moo ñu ko tuddee. signature ba nekkoo Iba Mar Diop. waaw su ma guddi muy diggante Ngel John ak Cartouche. ak Cartouche keroog waa bi. Gris 2 Pakala grand combat bi. fa la Coense ak double moteur njëkkoon a daje. wax nga dëgg ma di leen nattale naan ay ñaar ñii. waaw gis nga. ba da yàlla dox tey. ba tey gis nga li yàlla dox muy ko yàgg ak làmb. ñu yàgg ko topp depuis ci ay débéem. Ah, ah. naa combat yi njëkk a tëgg yëpp. ñu ngi topp. toll. Mhm. moom tey lépp lu mu parce que ku yàgg sonn ci làmb la. dëgg booy xool mën nga wax promoteur yi fi nekk yëpp mooy seen doyen. à part ñoom Gaston ñii. ak sëñ Modou ñaa wala li ci moom ci moom lamb waaw licence am am day macha allah quoi yàgg na de aussi tamit Sëwru Fall di sama nit nekk ku baax mhm. moom it ñu yàgg xamante mhm. waaw di nuyu Mbaye Ndiir aussi tamit di sama frère moom it nekk ku baax di un grand metteur mhm. di nuyu pël bu rafet di nuyu jeune amateur yëpp di nuy amateur yëpp nag vraiment ndax man baatu amateur yi laa yor ma dem rek ñoom laa fa toogal seen baat laa di ko waxee moo tax maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen jox rendez-vous daal incha allah dimanche ci stadium Iba Mar Diop muy diggante Fils de Balla ak général Malika. léegi dama bëgg Assane am lu ma ko laaj. Mhm. nga ñett jox si seen xalaat yi amateurs yi Assane. Mhm. Mhm. billet yi ñaata la. waaw billet yi yomb rek xam nga dama bokk si ñoom. waaw billet yi 2000 laa ko def 3000. 5000 ci suuf 10 000. mais benn tribune 3000 bi nekk à gauche. boo toogee moo lay nekk à droite. waaw xam naa moom jar na. dañ ko jënd ba mu jeex. dama bëgg amateurs yi ñu teel ñëw. ndax tirbine bi nga xam ne moo nekk boo togee loos. waaw bi lay nekk droite bi lay féete droite. Bamba Fall jël na ko ak VIP bi. pour ñu teel a ñëw rek. teel a ñëw ah. bala ñu leen di wutal ay sees ñuy toog. déedéet déedéet jot na mat comprendre nga. ndax dinañ wut ay sees yoo xam ne mille sees yoo xam ne pour ci suuf la. mais damaa bëgg amateurs yi. Mhm. fan daan toog ñu sañ sa dem toog foofu. ñu toog fa. ndax ñu fekk leen te allah. ticket yi lim ci wax. waaw ticket yi lim ci na Assane moom ku ko xam ah. xam ko ci ticket yu raisonnable parce que moom amateur la. Mhm. xam nga Babacar lamb gis nga ñu koy dund. Mhm. yàgg la nekk amateur. Mhm. saa bu ñu génnee ticket yi ñun duñu am lu wax. parce que moom dund na làmb moom nekk na amateur di dagg ticket di ñëw ci làmb kon tey jii nii moom ay ticket ñun saa bu ñu ko déggee duñ ci am dara luñ ci teg. lii mu wax lu raisonnable la. mais tamit euh, tribune boobu su ma juumalee même drapeau Bamba Fall bi passé su ma juumalee foofu daf ko jënd daf ko jënd waaw kon loolu ñun duñu bett kon teel a ñëw bi moom xam naa ne moom mhm. jeune yëpp dinañ ko def uh-huh. tamit dinañ sañse ñëw ci lamb ji ndax lamb ji lamb ji yàgg xaar la diggante fii dañ nga xamante mooy général parce que ñaari mbër la ñu nekk ci yoon mais ñoom ñaar góorandoo yi mhm. général ak fils de Balla waaw euh, Saourou Fall sax liir naa ko moom mi toogoon fii léegi mu ne mhm. euh, su ma defe naa moom la mu ne règlement de lan mooy rek lan moo war a indi général Malick ak fils de balle la règlement de compte règlement en tant que amateur yaa di toll foo xamante ñaari mbër yu dem ku ci nekk da ngay au sommet tey boo xoolee fils de balle fi mu toll tey jii moment bi ci géjawaay waaw écrit Balla Gaye tey mën nga wax ni mook Sokocim ñoo fa nekkoon ci ay lieutenant Balla Gaye yu mat mbër boo ko xoolee ci dayoo hmm. yor na ji jëmu mbër te bëre bi aussi tamit day bëre loo xamante ni amateur dañ ciy kontaan mu hmm. am manin na manin de am na manin boo xamante ni ku ko <laughs> ñu gis tamit ki nga xamante ni mooy général Malika nekk mbër moo xamante ni mën nañu wax ni Pikine daanaka fa la jàngee bëre waaw ndax ca fa Laye Balde la newoon mhm. dal di ñibbi këram ne nag jàng njàngaan ku mokkal bersa daar dellu Malika mhm. waa Malika yëpp ëmb ko ku xool démb signature bi mu def nga xam ni mhm. mbëru gox la ndax gox yëmb lëpp ñoo goxu goxu goxu goxu Malika ñoo ko ñoo ko ëmb vraiment di ànd ak ñoom et puis tamit di ko préparé boo xoolee ñoom bulldozer démb ni ñu ñëwee signature bi ak ñoom bébé ama côté yooyu noonu mhm. nga xam ne mobiliser nañu topp ci ginnaawam mhm. ñu nekk ñaari mbër yoo xam dañu nekk ci yoon mhm. waaw te ay goxaleen di topp te ay goxaleen di topp muy combat boo xam nag combat amateur la waaw loo ci mënti dégg mooy ñaari mbër yi ku ci xeeb sa morom mu daan la. te géej waaye daa am lu ñu ñam dimanche passé de dimanche jële passé. waaw non dimanche bële passé sorti bële ah! xool nga xool sorti ñu def yëpp dañ ko waaw waaw léegi loolu nag tey mooy ñoo ñooy ñëw àndaat ak fils de Balla itam daan dooleel ko te loolu da ma li ma jaaxal Balla Gaye dafa def benn sorti ne fils de Balla bu entraîné bu liggéeyee kenn mënu ko kon ça veut dire que ñoom ñi nga xam ñoom ñooy lieutenant am sax bàyyi nañ ko xel am na lu ñu gis si moom non bien sûr parce que man keroog jege naa leen ñoom ñaar ñëw naa ba jege leen ni bi ñuy waxante waaw xam nga bi ñu dañoo xaw a làng di mhm. waxante mhm. sana de balle na ko yow mhm. li nga foog foofu de dëgg la ñu ngay waxante waaw parce que général ne ko ba bés ba fils de balle ñu sànnante fa waaw bërekat la général aussi di bërekat mais général ci biir bëre bi day xeex fils de balle aussi tamit day xeex mais ku ci nekk si ñoom ñaar dafa am loo avantage mooy fils de balle tey jii man su ma ko doon indi dama koy bëreloo làng maanaam dama koy bëreloo ci côté saaku yi tey góor bu gisul lu mu xam génn parce que it général loo ci mënti dégg moment bi moo ëpp compétition waaw loolu moom faaw ñu wax waaw te it parce que ñun lamb rek dañ fi nekkal man ñoom man fi ne man sax problème problème parce que ñoom ñaar ne samay waay lañ <laughs> fils de balle ma ko léegi jël général noonu laan so ba pare ñu nekk ay mbër yu ma jox cër mais nag li ñu gis rek la ñuy wax ndeysaan de balle bu ma ko indi woon man dama koy bëreloo distance bëre distance di xeex xeexu benn benn fexe juumloo général général jóg mu faax ko comme ni ko Eumeu Sène Junior daanee parce que général aussi mu ngi ak allure boo xam ne heure bu jógee bu la fekkee surface am foofu lu mu la fa def yaa ko teg sa bopp parce que ay mu ngi ak ay rafaal yoo xam ne fu mu la dal sa làmb yàqu te bu leen bu ngeen jàppantee day day day bëri action waaw fils de balle nag moom bërekat la boo xamante ni moom it loo ko may si say ngemb ba mu téye la ñaari ngemb mm-hmm. da lay zongale da lay parce que lu mu mëne la gis nañ ni daan ci ay mbër yu bëri yoo xamante ne ay mbëru mbapat lañ parce mbooloo Odinga Odinga waaw simple te Odinga bu ndaanaan la boo xoolee tey mën nga wax carrière am ci bëreel ñëpp mhm. contre Boursine la ci ah. jël ko waaw na wax làmbam yàqu boo xoolee tey jii ñoom ñoom booy nekk yaraax booy booy bi bëre woon keroog ak Youssou Ndour euh, booy booy yaraax bi ñoom ñëpp bëre na ak ñoom daal leen ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci booy booy booy taqe bi nekk bi nekk lan saar waaw ñooñu ñëpp bëri na ak ñoom daan leen nekk mbër boo xamante ni mbëru gox la mhm. waaw tey ji nag euh, bu jógee géej waaye dañ koy topp mhm. kon tey li ko war mooy mu xam combat bi mu jël mhm. général aussi tamit gis nga ko fi mu nekk mu ngi regroupement équipe nationale di préparer CEDEAO bi mhm. kooku tamit gis nga ni am na loo xamante ni mu ngi koy waajal ak ay supporteram dëgg la te ku ci nekk jàpp nga ni ndam laa ngi sa poos ndam laa ngi sa poos ñuy wax daal que le meilleur gagne que mhm. allah rabbi yàlla nañ ko fekkee mhm. euh, suba la soreetul yàlla Assane defe naa ne euh, dégg nga li góor wax émission bi fi mu nekk ni ci jeex la jëm tey Baol Production ginnaaw làmb ji lan lay préparer pour saison bi waa non instant bi nii làmb dañ koy tëgg benn par benn comme ni góor a wax sànq ci xeexu fils de Balla bi Ah, maanaam léegi amatul taxaw di taxawal rek di dem. non non non non non. lu tax loolu. non expérience day am. xam nga mënoo ñulug fee ñulug teg fële. mbaaru boo sàgg na am bu xuuj. non mi ngi noonu wala dara yàqu ci. dañ koy def benn journée par benn bu ñëw nag ñu gën ko bëgg. defar ko ba mu baax daal defar ko ba mu baax jox leen suñ paree dañuy taxawaat xam fi ñu jëm. Ah. ci kàttanu yàlla buñ paree dimanche. waaw lundi mardi ñu ngi ci ay bagages. yéen ci ay bagages wala si kàttanu yàlla su fekkee am na ci lu nekk nii déggoo nañ waaw dimanche ñu am lu ñu wane ngeen de ngeen ngeen ne gars yi ne leen benn affaire a ngi nii waaw jàppaat leen ci lii jàppaat leen ci lii incha allah rabbi maanaam que daal tempo tempo ñu ngi ci combat ciy waxtaan ak staff bi ay mbay ndir mhm. pël mhm. xam nga ñoom seex jaw ñu ngi ciy waxtaan mhm. léegi lii moo neex lii dàq léegi lii moo neex mbëri bëri nañ komba boo jël defar ko muy làmb làmb da nga ciy sonn Babacar jox ko gëddaam jox ko li mu jar. même togg boo ci sonn sax du neex. du neex te li ñuy def nii dañ ko bëgg. ba pare nag nangu cee sonn. jaral ñu dem fu ne. tay luñ ci benn yoon. te tamit dama seetlu am benn seetlu bu ma day def dafa mel ni tey ñi nga xam ne nii góor ñoom ñi indi nañ lu bees. moom sax du ko woowee parce que moom du ma ne ci yàggul ma mu yàgg na ci. yaa ngi dégg <laughs> mais boo xoolee boo jógee dimanche la 24 ba ca topp nga dem Fallou njaay la mu ëndeeti. Tapha Mbeur Ada fas nga jóge fa Quench double moteur Baba Diaw ah loolu mu mel ni ñoom itam daa mel ni daal ñiy tëgg làmb xam nañ ñuy boole vraiment ñun ah? amateurs yi amuñu seen ah? fay xam nga ni ngeen di boole ñu bëgg yëpp taxawal nañu ko waaw xam nga làmb mhm. boo ko tëggantoo rek na damay tëgg làmb rek da ngay gis stade mu yaraax man su ma duggee stade mu yaraax rek dama duma ma ko waaye wax sax duñu bëgg. mi ngi noonu lamb day fàtt kay boo xam ne doo xam booy seetaan xam ku jóg naa ne ndox boo ñëwee ñàkk sa balance mooy nga dugg noonu lay demee ah, waaw muy dëgg dimanche waaw su Moussa Diouf yuuxu ba gars yi kontaan mhm. jékki-jékki nday faatu génn waaw mais ñi mu indi tamit Moussa Diouf Ndickou Thioune Ndeye Fatou Adama Diagne waaw noonu ñi mu indi ñëpp ay daanaalu lamb lañ ah, mais bi ma ci déggaatee Sidi Diop aussi tamit waaw dama ni benn genre plateau bu ndaw boo ah, xam ne nekk de parce que it Sidi Diop it daanaan dafa xew jaa daa mën a way sax dafa mën a way waaw waaw non non na lool ñu koy nuyu di ko ziar Sidi Diop dëgg la waay ku mën a way la macha allah bokk tamit ci ñi nga xam ne ah maanaam génération bi mm-hmm. parce que loo gis rek temps la ay jamono la parce que def defe naa tey euh, xale yi am nañu ay royukaay ñoom waykat yooyu defe naa ne buñ xoolee ci Youssou Ndour xool si baaba bii di maal mm-hmm. Ismaïla Lo dem si yàlla sa papa ci woon ah ak ah, ñeneen ak ñeneen ndongoloo sama waay ndongoloo kenn day kooku defe naa ne kon defe naa ñoom ñii fi ne waru ñoom mujj pus bi mu réer te defe naa ñu nga ca yoon wa moom Sidi ci loolu la ne Sidi ca la sax waaye kece euh, fee tamit faramaaren ba itam mu nga ca yoon woowa kon yal na leen yàlla teg ci yoon waaw xam nga foofu itam maanaam daal <laughs> maanaam daal nit waaw lu muy def waaw na ko na ko gëm te dëggal ko mm-hmm. gëm ko saa bu wàccee wanee boppam. nit ñi ne waaw. dëgg la loolu laa gëm de. am na loo xam ne nag fa laay tëjee. Mhm. fii laa ko waxee Babacar nga may rek dama wax ci fils de Balla. waaw te waxuma ci général. waaw général te ñun comme dañ fi toog ak njaaxaanaay rek. ñoom ñëpp suñu ay mbër lañ. waaw général aussi dafa am manin. maninam ñu bëri ñu ngi naan mën na ko changer mais man su ma ko doon indi tey du ma ko bàyyiloo maninam. mooy parce que général aussi tamit loo ci mënti dégg. Mhm. arbitre bu sifflé day dox wut si fils de Balla. day xeex seeg moom. wóor na si moom. xeex bi nag da doon xeex bu jaar ci yoon parce que hmm. sànq maa dégg soo fi wax de am na xeex boo xamante ni tey heure boo <laughs> ko xeexee ba jaayu wala nga xeex ba juum ci biir làmb ji ñu la ba moom it na xam ni tamit bés bi bés bu mag la la xool ko mu nga nee di xamante ni man la <laughs> waa géej waaye di ëmbee moom noonu lañ koy ëmbee bis bi daal bis la boo xamante ni bis bu mag la sawru na gis na ci ñoom koy Baba Fall lañ ko tuddee muy maire Médina hmm. di koo xamante ni li mu def si Médina bi ñëpp teg nañ seen bët en tant que kon ah. tey moom aussi tamit nag xam ni bis bi mu doon bëre. yow it la futur maire ak bis yi muy bëre du doon benn. waaw man la futur maire may wax waa Pikine yëpp maa ngi leen di tàllal loxo. day maa ngi woo jeunesse bi di woo Pikinois yëpp. vraiment di ñaan aussi tamit yàlla yóbbu ñu si jàmm. yàlla mhm. jox ma maire bi. parce que Pikine euh, Pikine West euh, Babacar soo gisee ma di ko laaj. Mhm. mooy dama fa juddoo. Mhm. yaroo fa màggee fa. mais maire yi ñu mus a am yëpp. vraiment ku ci ñëw ba ñu am ci moom yaakaar rek nga def loo xamante ni nit ñi du ñu am ci yow benn hmm. benn kii du liggéey bu ñu fay def du dara lu ñu fa def jàppale wuñ population bi jàppale wuñ jeunesse jàppale wuñ ñi fa hmm. dëkk léegi nag loolu nag moo tax ñun ñi nga xamante ni ay jeunes lañ juddoo fa hmm. dem ba benn moment ñu gis ne war nañ mën a téeméer bi liggéey ci li nga xamante ni mooy tey gox bi jàppale jeunesse bi jàppale ñëpp parce que gis nañ fa ay malade yoo xam ne saa bu ñu feebaree ñu la ñuy seet ay nit yoo xam bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe ñun la ñuy seet kon tey ñun ñi nga xamante ni ñoo fa nekk gëm suñu bopp juddoo fa yaroo fa nga xam ne ñun ñoo ko moom Pikine ku ko yàq ñun nga yàqal ku ko defar ñun nga ko defaral mais ñu jóg laaj maire bi. am na solo osé nag pour laaj ko. macha allah Pikine yëpp nañ ma jàppale. bu nu gis jox ma maire bi incha allah rabi ma liggéey ci lu benn maire yi musul liggéey. mës ta liggéey loolu am na solo bu ñu gisee tey ci ëxalu làmb euh, président générateur di laaj maire mbégte lay doon ci waa làmb parce que gis nañ ko ca Medina. Mm-hmm. Gris Bordeaux tamit lu mel la bëgg. Mm-hmm. loolu lépp fierté la rek bëgg a defar la ndax am gox itam ku ca juddoo. Mm-hmm. war nga xool looy defal gox ba ginnaaw bu la gox ba defalee la nga la war ci yow war nga leen a delloo njukkal. foofu nit maa ngi félicité sama frère Ama Baldé. waaw gis naa mu taxaw ci taxawaay bu am solo. depuis France. Mm. du toog deux jours te woowu ma. ci sa candidature bi pare na pour jàppale ma nee na ma bu ma ñibbisee. Pikine ñëpp dinañ xam ne boo ci nekkee di ci yëngu nekk ci xale nit ñi di la ci jàppale nga dem ba doon ci quelqu'un nit ñooñu doon la jàppale tey suñ soxlaa dara kenn waruloo xaar kenn waruloo woo moom it moom it xam na li ko war ci sama diggante ak moom pare na pour jàppale ma ci ci li nga xamante ne borom MMA bi vraiment muy sama frère aussi tamit nekk nit ku baax gis naa taxawaay bi mu si taxaw di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm hmm. am na solo hmm. macha allah hmm. Assane waaw looy tàggutoo non damay gën a dalal xelu amateur yi waaw sécurité bi dama ko yokk di ci gërëm commanda Thion li ma ah. doon fay ci làmb mm. comme ni ma defoon bu mbay guy gi mm. ma waaw mm-hmm. noonu laa ko def mm-hmm. dama ah. double sécurité bi mm-hmm. euh, am na ay ñaari L200 yoo xam ne dañuy dem euh, Blaise Diagne bi bii di dem Rue 25 képp koo xam ne yaa ngi def na ko dul noonu waaw dan lay jël teg ci L200 bi yóbbu la police quatrième rek ne ñëpp ñëw ci jàmm bëgg jàmm te xam na jàmm rek lañ fa wootee sax a gën di comprendre nga di gërëm nag amateurs yi waaw jël nuyoo bi teg ko ci loxool góora mm-hmm. li tax ma invité ko mm-hmm. dañoo yàgg dund làmb bi ñu waxtaanee ak bi démb pël na ma nan jëli góora mm-hmm. xam nga ku nekk xam na yow li ngay pesé yaa ngi dégg muy koo xam ne jàmbaar la li mu ko waxee sànq rek waa Pikine bu fekkee nit daa judd ci gox bëgg koo defar nañ ko ko jox ndaw lu muy liggéey rek gëm ko suñ ko ci jàppalee day dem donc dinañ ko jàppale luñ man vraiment maa ngi talal yaa ngi dégg làmb yëpp euh, te yaakaar naa ne bu ko axlu làmb Pikine jàppalee mm-hmm. waxuma la maire bi yi bu bëgg mais mun na jël sax bu mag ba maire Pikine bu mag jàmbaar la te gëm na boppam am na solo Bombardier lu ngeen koy ñaanal di ko mm-hmm. yëpp dëgg la ñu waaj xam ne ñun mm-hmm. ñoom lañ fi nekkal am na solo Bombardier dama ciy ñëw tey samedi mu war a jongante moom itam ca Pologne defe naa ne gis nañ parce que vidéo yi man yëpp impressionné na ma mais bu Balla Gaye moom a gën a kii parce que tamit adversaire la waaye Balla jàpp nañ kii sénégalais la mhm. te réew mi la teewal ñu génn nañ def vidéo ñaanal ko ñoom tafaatin def nañ parce que ñu bari def nañ ay vidéo waaw waaw euh, bombardier ci MMA boobu waaw dañ koy ñaanal yàlla taxawu ko yàlla jàppale ko ndax jamono jii mu toll drapo Sénégal la yor yaa ngi dégg gis naa mbër yu bëri def vidéo promoteurs yi ñun ñëpp def nañ vidéo comprendre nga suñu nit la dañ koy ñaanal yàlla taxawu ko jàppale ko mu xaw a rey waa ji na ko dóor dóor yu métti daan ko envoyé ñu vidéo ñu dugal ko kenn du moom Lirou Diane moom na victoire ba ca Pologne na ko fa waaye bu ñëwee fii na gore ma ne daal xamuñu waaye daal Balla moom ñaar na ko ndax ca Pologne góor waaw mais Babacar comme ni ko Assane waxee rek di ñaanal Bombardier rek ci combat bi mu jëm. Ah. parce que comme ni ko Assane waxee drapeau ah. Sénégal la la gàddu fi toll nii fu mu dem rek Sénégal yëpp la fa teewal. Ah. loolu muy yëngu muy MMA bi ñu ngi ko ciy ñaanal yàlla defal ko ci ndam. Mhm. ndax it mbër la boo xamante yàgg na compétir ci loolu. Mhm. te yàgg na fa dem aussi yàlla di ko ci may ay ndam. ñu ñaan yàlla defal ko ci ndam bu baax a baax incha dinaa nii lay tëddee grand combat bi fils de Balla la général Malick comme ni ngeen ko xamee ba cay topp Laye Brisli nekk kër ma kër Mbay Fall Hmm? Ah. ak Aatu Junior. Ah, école euh, Babacar combat bu doy waar. combat waa Aatu mii. yëkkati sa micro. la. Aatu laa boo xoolee ki nga xam ne mooy Laye Bruce Lee. Laye Bruce Lee Laye Bruce Lee koy indi. mu doon mbër moo xamante ni nag naa la wax leen <laughs> ah ci ay ndam la toog de. muy Laye Bruce Aatu nag di daanaanu bërikat moom tamit. maanaam combat boobu rek doyoon na grand combat. Aatu maanaam man Aatu la may xaw jox tuuti. dama doon tëgg dama doon tëgg laaj mbay cuun mu ne ma. Uh-huh. booy bi bëri na onze combat onze combat ma ne ko loolu non may woo ne ma su ma bëree ci yow ñeenti combat ndeysaan ba tey jóge naa fi naa fi dëgg la dëgg la danga koy jaay dëgg la xale yi dañ leen war a wane wane wane dëgg la di leen filme dëgg la di leen jàppale di leen jàppale dëgg la ndax ñu mag ñi mhm. tey ñooy nekk ñu ndaw dëgg la ba may njëkk a tëgg mhm. Sa Dakar mhm. boobu kenn xam ko dëgg la ma tëgg ko amaa Baldé ba ma koy tëgg euh, spécial yóbbu fa 2S dëgg la gaa yi dañ ne da ngay yàq booy yi ma leen booy ñooy nekk mag ëllëg mag ëllëg nga Assane Diouf gis nga def nañ fa lu ne. daan mhm. koy wax xale jox ko. li mu moom moom ko fàtte. dëgg diw moom a defal njëkk a defal dëgg la dëgg la. macha allah am na solo Assane ah. ko fay ko quatre-vingt mille. Ah. muy premier combat am ak waaw bu nekkoon ci sopp nabi sopp nabi. waaw ci jógee ci yaakaar naa ci la ko tëgg boole ko quatre millions. waaw keroog la ko fay yaakaar naa ñu bëri ay mbër yu bëree ngi fi di bëre grand combat amuñu amuñu kase boobu moo kati senior kati combat boobu moo ko génnee ba mu ci jógee ci la bëre ak Baye Paul grand combat am na solo Badiane moo allah am na solo hmm. kon gars yi foofu jeexale kon noonu la demee laay brise li mooy bëre ak aatu senior loo Karim ah, loo Karim la ak ki nga xam ne ni moom moo di Habib Malaw lool tamit day am teg soog ak ki nga xam ne mooy saa jaxaay internet. ba ca ba eh, école du Cheikh Mbaba ak ki nga xam ne nii moom mooy Pape Thiam Junior ah, booy Juuf tamit ak ki nga xam ne Ngaala Jéy laa loolu dina neex laa laadum ak benteñe bii benteñe ban la ah benteñe bu mataar Ndiaye Matar ay maxu maa ngi koy bëgg borom Lamsaar Léopold tamit di bëre ak Zos ah, loolu noonu lay demee carrière numéro 2 ak ki nga xam ne moom mooy Pape Morlo numéro 2 Tapha Leer Junior ak ki nga xam ne moom mooy Bébé Jali kon gars yi lii la leen Baol Production indil samedi astaghfirullah dimanche suba insha allahu rabbi nan ci bàyyi xel te bañ koo jaawale comme ni ma leen koy waxee di wax ne làmb moom nii la demee ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla na yàlla def jàmm si àddina bi waaye yàlla na ci Sénégal ëppale promoteur yi tamit comme ci mën a doon bés boo tëgg yàlla na nga ko réussir barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que tamit promoteur bi jël ko mbër mi dem di kooku tamit jar na ñaanal ay ñoom maanaam ay nit la ñu nga xam ne tey état daf leen war a di gën ñaax di leen dooleel parce que tamit ñu ngi dimbali ay nit bu jotee xaalisam ñoom bëri na kon daal dimanche gars yi noonu lay demee am ngeen dikku cuun am ngeen day faatu Adama Dieng am ngeen Moussa Diouf am ngeen Sidi Diop Bamba Fall toog amateurs yi toog kon ñëpp ay toog Mbaye Ndiir toog mhm. macha allah góor a mhm. may nuyu tamit du jànjee ko mhm. parce que tamit nit ku ne da nga koy waxal la ngeen seet nit ku baax waaw vraiment maa ngi koy bëggee bu baax a baax mm-hmm. président du Diagne maa ngi lay ziar mm-hmm. waaye parce que tamit lu yàgg la te ànd bu yàgg olof ne na dëgg la waaye yéen tamit yéen a ngi bay seen waar na lépp rafet rek l'essentiel que daal mm-hmm. li am solo mooy lépp nañ ko def ci yar ak i teggin ak joxante respect bu ko defee lépp ay nice pël bu rafet jaaraama mais na mun naa dibi nag <laughs> doo ko fi lekk <laughs>